waaw boo xasee ni man rekk taalibe yonent bi la ñaari secteur yépp tàllal la loxo waaye benn bi moom doo ko jox loxo bële daal ndax dafa gën a yomb sa jaad rekk ci suuf ak sa kurus kooku dafa yomb waaye bii nga xam ni nangami junni borom kàttan ñu ngi la fay xaar pour won la ni sa téere baaxul sa yonent baaxul boobu doo ci sawar waaye itam du tax nun nu condamné la waaw ndax itam ni sëriñ babacar daan firee tabiatul xaal dinaa ko faral di wax ndax lu am importance la daan na wax ni mooy nature profonde de l'individu lu mat a bàyyi xel

ñële bari lool ay candidat mi fii benn candidat nekku fi nga xam nga ni ñaari milliard walla ñetti milliard ci ay taalibe ku ko am ci kaw suuf te lu ñu jënd keneen na loon ko jaay mën naa am kaleen ka jaay sax seen noonu téere la seen noonu yonent la loolu kenn mënu ko firi loolu kenn mënu ko firi maa la ko wax waaye itam bu ko jam de bul jam waaw teeyal rek dangay teey ba xam ñi réaliser lu nekk yàlla nangu na ko walla nanguwu ko foofu la affaire bi nekk waaw mu mel ni kon nag ñaari ñaari ñaari profondeur yu ñu sakk fi nekk bii profondeur sakk nañu ko te dara sakk ko lu dul li ñuy tuddee un réalisme, un réalisme occidental. loolu lañ ko tuddee ñoom defe nañ ni ñoom nekk rek ñu réaliste réalisme yëpp ci kaw matérialisme la tegu moom moo ko sakk waaye ñun profondeur li ko sakk li ñu euh, maam yi lan lañu baaxe woon danga koy tudd danga naan nangam lañu baaxe bu fekkee ni li ñu baaxe moo gën li ci téere bi nu xam bu gëmul li ci téere gënul li ci téere bi nag nga fekki boroom téere bi moo gën de du tee nag du tee nag ñoom itam am nañu seen mérite ca ña ca war barewul nag waaw ndax man néew na may waxtaan ak étranger ba cité ko étranger mag ñi fii rekk laa koy cité te du ca man dara waaye nag nga xam mag ñi nga war a ak ñi nga warul cité waaw danga koy xam waaye du mag moo fekk mu farank laayu rekk nga ni dama koy déglu fekk na li mu lay wax moom ci boppam xamu ko wallaay ndeysaan danga koy yërëm sax waaye man duma wax ak ñoom mukk te mag ñu nekk fii laa leen di siti waaw waaye bu fekkee profondeur bi dafa sakk ndax matérialisme dégradant profondeur bi sakk ngir archaïsme débordant loolu baaxul bu ko defee nu nekk nu ci yoon tubaab yi nekkuñu ci yoon yàlla mujj feeñ rekk tàllal nu loxo pour ñu fekk ko ci mbiram téere bi nag nekk fi la téere bi kenn xamul la kenn xamul ko yonent bi bu daan wax arab ñépp di bëgg a seey waaye benn aaya wàcce xamati fu mu nekk seetal loolu kooku du caaxaan moo lay wan ni du yonent bee wax moo lay wan ni du Jibril a wax moo lay wan yàlla ci boppam moo wax waaw waxam kenn kenn xamul lan la kenn xamu man ñiy déglu alxuraan lu ëpp waxtu dama ni may lañu am alquran nga toog déglu ko waxtu te gëlëmuloo walla nga màndi yaa man ci àdduna waaw waaw walla boog dégguloo ko ma wax la ko waaw parce baaxul ba benn waay bu ma nii dama dégg ni mag ñi daan nañu tukki réew ak réew pour faj jàngoro jikko ma ni ko waaw waaw fekk Sidi Mahamadul Xaafid a ngi toog sama najaayu bopp ji wallaay yàlla dogal rek gànnaar ma am fa sama najaayu bopp yoo xam ni tabarkal la dañu xaritoo woon ak sama wëy jur yi waaye ñi ci ëpp it ñoo ma jàngal alquran waaw mu ni ma daal sëriñ bi dafa am lum nu yar ci sunu famille mu ni te sama yaay a ko def def nuy wujjale ba fi mu ne ñun ñépp ku ne moroom mu wujj la ko jàpp ma bëgg a xam man réew lay dem pour ñu fajal ma ko ma ni ko Sidi Mahamadul Xaafada ngi mën na la ko fajal du taxaw sax mu defee ni daf koy bindal saafara wala daf koy takk takkal téere mu ni ko del jàng suratu yusuf te di ko teeylu di ko teewlu waaw rekk waaw doonte benn yoon tous les six nga koy jàng te teeylu ko teewlu ko bu yàggee dinga génn ci kujj ndax mu ne ko kujj dafa rey xol te jullit bu xolam dee yàlla soxlaatul jaamam kujju baaxul waxuñu kujju jaari jigéen yuy sëy mais kujju ay nit yu bokk benn famille lañu wax góor ñetti wujje jigéen ñetti wujje xale ñetti wujje mag ñetti wujje catastrophe parce que daf leen dul jox lu yàlla namul ci ñoom dañu wujj ba xëy dee rek ñoom ñëpp dem safara waaw moo cay mujj moo tax baaxul dafa rey xol te boo ca àggee dëgg dootuloo xam looy def loo xam looy wax loolu moo tax mu ni ko del jàng sóoratu yuusuf te di ko teewlu di ko di ko teeylu di teewlu maanaam di ko teeylu ndànk-ndànk ak di ko teewlu maanaam nga firilu ko waaw wante mësuma gis mukk téere bu amal nit ñi njëriñ comme téere bi yàlla wàcce ci yonent bi waaw amul moo tax mu boole tawraat ak injil ak furqaan noonu la ko hiérarchisé xam naa doomu daara yi nañ ci bàyyiwaat seen xel li ñu man yëpp ñu ngi koy def nag waaye dañoo jaaxle fi ñu ne dañoo jaaxle wax dëgg yàlla te ñoo yey bu ko defee borom bi wax na ni mu séddalee ñaari àdduna yi àdduna xayb ak àdduna shahada كانتا رزقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي ndox suuf la ko jur waaw moo tax diggante xayba ak shahada ndox a fi nekk waaw ndox ci la lépp di génn waa ndox façon ndox bu ne boo reyoon fel tey la tooy ca moom nga xool ko rey melentaan la tooy ca moom nga xool ko nga fóon ñaari tooy tooy yi duñu bokk xet parce que bu ñu bokkoon xet fel du nekk fel melentaan du nekk melentaan waaw yàlla man loolu kenn fekk ko ci waaw bu ko defee dara rëccul waa xayb te yow ci xayb bu nga bokk te lépp xayb bu rëcc la loolu naka ci pexe te lépp xay bu rëcc la rëcc la waaw yaa ngi ci portaabal yi yaa ngi ci nangam nangam yi yaa ngi ci yii yaa ngi ci yaa te ñëlee gën ëpple gën a baaxle te terewuñ la ko te boo ci jëmoon léegi xeeb yii boo ci jëmoon léegi xeeb yii ndax yii bu dul espace du temps duñu dox te foofa espace ak temps amu fa waxtu wu la neexee rek ma nga ci te it tëju ñu bunt bi waaw loolu mooy li nga xam ni mooy ci nekk su ko defee nag mu mel na sunu boroom liggéey na ci téere bi liggéey bu nga xam ni boppam rekk ko ko jaral boppam laa wax de waaw boppam rekk ko jaral enseignement bi ni mu ko organiser la yonent bi moo tax xam nga yonent yi ñu tooñ yépp mu jaral yàlla mu alak seeni xeet walla mu alak ña leen tooñ li ñu tooñ yonent bi mat na junneem te taxul mu alak kenn moo lay won daraja yonent bi waaw joxu ko lu dul tontonteel ak ñoom lu am solo la dañu ag bunga ci jamono bu nga xam janggu li Maodo daan wax ni bu len jàng xunu waye na ngeen jàng tontu ndax lol la sama bu len xunu waye na ngeen tont waaw bu tont ñewé rek ngeen tont amna solo de waxuñu ngat nga nga nga tontu na n'importe comment ñu loolu waaw ki la song daal xam-xam la la song mi ngi ay argument te moo lay jaay avion moo lay jaay canon moo lay jaay char d'assaut moo lay jaay voiture bi nga gën a bëgg moo lay jaay la sa kër yépp waaye mi ngi lay xaar pour nga ñëw mu weddi la sa téere weddi la sa yonent di la xaar ba xam looy wax te doo gis keneen ku la ko jaay te yow loolu nga bëgg donte du farata ci yow avion du farata voiture du farata dégg portable du farata dara du ci farata ah. imposer le système am te mënuloo ci tous te na ko xefa xepi du ko def ndax am mu sama gis mukk bëgg a xare comme sunu borom wallaay ndeysaan xam nga moom bokk na ci li gën a yéeme bi mu bindee aadam bind xawwa lu taxoon mu ne aadama bul laal garab gi parce que xam na ni su ko ko teree dina ko laal te bu ko laalee mu wàcce ko te bu ko wàccee tëral programme loolu rekk a tax xam na ni bu noppi woon rek Adama du ko laal te bu ko laalul du mën a xareek noonam seetal boobu xikma ak li mu jur yépp suñu nekk ci kaw suuf ak coow yeeg geer yeeg xuloo yéeg wujjoo yéeg xëccantoo yéeg yépp mi ngi ko laloon te waxu ko te balaa mën a nekk rek aadama laal garab lé bu ko ni woon ni patt rek aadama du ko laal te bu ko laalul du mën a def programme indi nu fii rek ci planète Terre bàyyi nu nuy tojante bopp seetal loolu bu ko defee su waxee lii fii wax la safaanam fii loo ci man mo mel nonu lum la wax fi wax la sawaanam fi dara nga ci manul dara nga ci manul bu la waxe fi li wax la sawaan ba fële motax sunu bajen bu bax bi rabiatalaa daw yéen ni ko may ma rekk sama ak yow ma am une troisième voie ndax dama tay mu wax ko yàlla wax yàlla ni ko dama tay man rabia dama tay sama ruux moo tay sama ruux li mu tayee buñ ma nee xoolal fi ma xool gis safara ñu won ma ni muy def nit ak ni mu koy fulleeg ni mu koy yàqe sama ruux di lox foofu ñu wokk ma ni ma xoolal aljanna ma xool aljanna gis dex ya yu neex ya sama ruux di lox jeexagul ñu wokkaat ma won ma beneen aspect ca jaanam ni ma xoolal fii ma xool foofu jeexul ñu wokkati ma ni ma xoolal aljanna ma di ko xool bokkul ak aspect bu jëkk ba ba sama ruux bi di lox léegi nag may ma tegal ma fële àjjana tegal ma fële safara te jox ma sa bopp waaw maa ngi bëgg a dee nag waaw te wax na dëgg parce que nii rek nii rek nii rek dafa metti mu ne ko fa fële rek dégagel ma àjjina fële dégagel ma safara fële te jox ma sa bopp moo tax mag ñu bari fekk nañ ko ci loolu ndax moo gën a noppale kii jaamu pour am àjjana wala kii jaamu pour ragal safara kooku du am jàmm te boo watul ca safara la jëm ndax da ngay fàtte yàlla ci diggante ala bi dikrillahi tatmainul xulub ñu ne ala bi dikrillahi tasdaadu dunub ah seetal loolu ñu ni booy fàttaliku yàlla sa sa xol dama dal mag ñu ni déedéet boo fàttalikoo yàlla sa bakkaar yokk ndax waruloo koon woon fàtte ci diggante bi ba di ko fàttaliku waaw seetal loolu te looluy dëgg moo tax rabiatal adawiya résoudre problème bi ni yàlla may ma ma sopp la te dooma fay dooma fay ñaanuma la nga fay ma ndax rokk mi rokk mi baana baana rek waaw bu fekkee sa digganteeg yàlla nag loolu nga fa doxale léegi dootuloo jaamam baana baana nga maa la jullil ci suba fay ma àjjana ci ngoon léegi kay yow dootoo jaamu yàlla léegi kay yow baana baana nga rek nag waaw te li nga koy defal du dara sellul ba noppi nga ne ko jox ma li gën ah yow kay li ngay def sax du baana baana yem ci kenn xamul li ngay def lan la looloo ci nekk loolu moo tax Maodo wax ni lu doomu daara daan jaamoo yàlla pour dem aljana def naa ko waaye ba ma demee ba xam ni coobare coobare coobare mu yóbbu nit aljanna ma def li ma man rekk li ci des ma dem ci sama commerce mu dundal ma jeex na kooku jeex na su ko defee nag xay bu xay bi jógul fa mu nekk ma nga fa shahaada jógul fi mu nekk mi ngi fi bu ko defee ñoom ñaar ñépp ku nekk organiser li nga moom ci nit shahaada li mu moom ci nit mooy li ñuy tuddee alxawaasul xams hmm. <coughs> na juróomi sens yi rekk la shahaada moom ci nit làmb daj fóon xam xet mos déglu ah leneen xool gis làmb daj mos fóon déglu juróom yooyu la la shahaada moom ci doomu aadama moo tax tubaab yi fexe ba wut juróom benneel ñoom itam dañuy wujjeeg yàlla waaw bu ñu xamoon fu mu nekk ba léegi dara du ko jar yàlla àtte ñu ni am na juróom benneel ñu ni juróom benneel ba fala artiste yi di duye ñu daldi jox artiste yi boobu daraja waaye gis nga coow li mu indi coow li mu indi mooy nitu diine yi nekk Occident d'accorduñu ci aar ñu jox ko keneen ku dul yàlla ah te fekk nag affaire bi dana jafe parce que ñoom itam ci seen biir dafa am ñu bare ñu weddi yàlla ñooñu duñu mën a jël aar di ko jox yàlla am na artiste yoo xam ni li ci ëpp nangu ñu nekk borom bi xëy na am nag am na nag ñu nangu nekk borom bi dinaa leen ko di nettali ci <clears throat> correspondance su Jean Jacques Maritain ak Jean Cocteau waaye Jacques Maritain mujj na yey Jean Cocteau ba mu fekki ko waaye moom it am na côté bu mu yeye Jacques Maritain ba Jacques Maritain hésité fa tuuti ndax daf ko ni sama défaut mooy ñàkk jël sama aar jox ko yàlla c'est vrai mais yow itam sa défaut mooy gëm sa sëriñ ba mu ëpp te mën na la dog ci yàlla loolu la ko wax seetal loolu loolu Jacques Maritain bañu ko bañu ko waaye waxul ndax foofu kenn mënu fa wax mu ni ko ndax yow Saint Thomas d'Aquin rek nga gëm te bu ëppee ba ëpp yàlla mer ci kaw waaw loolu la moo tax da yëf ji dangay xam noo koy defe de <clears throat> waaw dëgg-dëgg doo gëm sa sëriñ ba rey ko rey sa bopp baaxul waaw waaw waaw <clears throat> baaxul nag baxul melni mel ni juróom yaa ngoog alxawaasul xams tubaab yi teg ci benn ni mooy sixième sens foofu la artiste yi di jële bu ko defee xay bu moom it proposé juróomi élément ruux fitra nafs atifa mantiq Ah, di leen déglu juróom benneel ba di Nawamisi brigade spéciale brigade spéciale ndax xam na juróom yi mu délégué ci nit na mu toll amatul brigade spéciale bu protéger alal jooju àdduna dafay tukki ñoom lañu ñu tudde mu boole leen ak Jabrail pour mu commander leen parce que ñoom nanguwuñu keneen commander leen moo tax kenn ñemewu leen sax nëgëni daaw wàcc nañu fii ci Sénégal te li ñu fi doon wut baaxul man xam naa ni baaxul mënuma ko interpréter mais xam naa ni baaxul da fekk nag ñépp ñaan nañu ñaan rekk ñaan waaw ñoom seen mbir ni mu yéemee dafa ëpp Nawamis waaye ci comme ci Muusa lañu ñu gënoon a siiwee dañu defe ni ci moom rekk la ñuy yem mais déedéet ba léegi ñu ngi ci seen liggéey ba léegi ñu ngi ci seen liggéey ñoom lu ñu tudde ni brigade spéciale lañu yàlla mettre leen suula le haut de Seyyiduna Jabraïl ñoom bokk na ci seen ndimbal mooy bu ñu encadré yonent yonent ba du fen mukk ci dundam dana dund bu wuy ji boroomam du fen mukk ndax asamaan jàpp na ni fen mooy bàkkaar bi nga xam ni moo gën a rëy ci bàkkaar yi bu ñu boolee bàkkaar yépp dajale leen teg fii bu fen ñëwee ñoom ñépp ñu daw ndax moo leen gën a garaaw moo leen gën a bon waaye gis nga aada ni muy def aada mooy fexe ba bu mag ñi ne diw de yëngal na aras ñépp ree waaw yéy seen gerte seen mboq ñëpp rey yow de yëngal naaras fekk yëngal naaras def na lu raw loolu parce que mag du fen mag bu fenee rekk malaaka yi xëm ndax xam nañ ni bakkar yépp benn ci mën a toj suñu planète bi muy fen su dul woon ak wala yauduhu xifduhuma àdduna tukki kon bu mag fenee planet bi éclaté parce que xeex ak xaqiqa la te ku déclarer guerre nag yàlla yaa tooñ yaa tooñ loolu mooy li ci nekk su ko defee aada moom itam ah yàlla ak système am tubaab beeg système am sunu maam yeeg seen système à nous maintenant de choisir loolu mooy li ci nekk su ko defee ci biir loolu noonu ko Maodo waxee laa taxtarru bi nu suus moom kenn xamul lu mu doon ci nit ndax dafa dëgër fit dafa dëgër fit waaw waaye itam baax na bu ñu dee wax lu jëm ci téere bi ak lu jëm ci yonent bi ñu di ko tuddal ña nekk ca moom waaye baax na itam ñu di ko tuddal ñi nekk fii waaw ndax léeg nga gis ci ku ñu tane ñeef ñafale amul werante dañu mas am gan gan yu jóge Makka ñëw fi sëriñ Muniru nuyu leen ba noppi ni leen yéen nu gan mag yéen nu gën mag ñu jëkk wante noo leen gën mag ñu mujj waaw seetal loolu pour wax la ni mag ñi fii jàmbaar lañu yàlla xam na ko yàlla xam na ko mu mel ne rek affaire la boo xam ni da ngay jaaxle sax wallaay ndeysaan wallaay wallaay Mmh. maanaam julli yu juróom jaamu yàlla la waaye war waay la boo jàppee rekk ni jaamu la kese kese doo ko jariñoo waaye boo xamee ni war waay la dafa am fu mu jëm ak yow moo ci tane waaw moo ci tane bu ko defee bu suba bi moo lay yóbbu ba ca tisbaar gëléem nga foofu jël la bu tisbaar bi moo lay yóbbu ba ca tàkkusaan gëléem nga foofu jël la bu tàkkusaan bi moo lay yóbbu ba ci timis gëléem nga foofu jël la moo lay yóbbu ba ca gee nga fekk fa gëléem ga lay yóbbu ca kaw nag waaw mu mel na lu yéeme la Maodo am fit bi mu am ndax am na loo xam ni ku ko interprété rek ci façon bu mel noonu jàmbar la te yàlla dafa dogaloon nag ñemewul woon réew mi ñemewul dafa ragaloon réew mi te nag lu mët a bàyyi xel boo fi toppatoo lislaam la taxoon mu ragal réew mi mat na bàyyi xel waaw ku ragaloon réew mi la moo lu mat a bàyyi xel la ndax itam ñu jëkk ñi li ñuy for ci lislaam yépp am na lu ñu fekkewul te loola ñi ko fekke rekk a ko mën a àtte waaw waaw te itam ديال الدق نعم دق دفع منكم من اللي جايل parce que boo dee liggéeyal dëgg bala ngaa ne kenn nga condamné sa bopp ba noppi soo dee liggéeyal dëgg bala ngaa kondam ne kenn nga condamné sa réew ba noppi waaw waaye soo ko dee delloo ci ñu jëkk ña rek ci ñu jëkk ña rek te ñu jëkk ña rek dafa dul joxe benn résultat waaw walla boog da ngay wéetoo résultat ba te boobu itam nag baaxul mu mel ni gi su nu ko bëggee jariñoo il faut que am lu ñu bàyyi xel ni lislaam a ngi rek lislaam a ngi lislaam a ngi lislaam kese kese du ko defar fokk am lu ñu bàyyi xel ci réew mi mënul ñàkk mënul ñàkk nag ndax dafa am ñaari buur yu mag yu nga xam ni kuy wote cosaan ci réew mi boo yemee ci ñoom di nga damm sa kidd te fi lañu bokk fi la juddoo fi lañu ñu nàmp ñoom ñu ne bokk wante kenn ku ci ne dafa xëy condamné réew mi kii buur ba jolof la Alburi kii dameel du Kayoor la muy Lat Joor buur ba jolof fu mu mujj gaañoo ji du ca Niger xam nga kooku foog mu condamné réew ma nga gaañoo ji ca Niger te bu trahison amul woon kon fii la ñaan yàlla des fi pour wax la ni réew mi lu mët a bàyyi xel am na mag mu ko ko waxoon ni ko li rëcc ci sa làmmiñ baaxul parce que fii ku ñu xam fa nga jëm dafa àgg Lat Joor ñëw jaar foofu takku saanam sa ba mu rëppatalee façon wa fu mag ña nekk ba sax danaa leen fekk kooku suicide mystique la te ñoo gën a màgg ci buur yi seetal loolu waaw buur ba jolof magam ma wax ni bu ma yëgoon du waxee noonu ndax fii ku ñu xam fa nga jëm doo fa àgg aada tax waaw aada ji ennemi ñépp la aada ji ñépp la waaye am na ñoo xam ne tey boo leen ko waxee ñu dóor la yépp wante Lat Joor it la même chose keroog bañ ko indilee information ba ca Ñooro xam nga Ñooro fa la mag ñépp daje woon Maam Mor Anta Sali Maam Maxtaar Penda Xaadima Jaxate Kala waaw Maamu Ndari ñoom ñépp fa lañu daje woon ak seen bokk yu baax yi di seet rekk fu ñuy jaar pour rawale réew mi la Joor fekki len xaw fa yàgg nek xaw yàgg gi rek tax na gannaawam lu ne sos ba ñu ñëwé wax ko ni ko amna lu fa feñ dal la fa feñ xaw na niru ni tendance à la facilité la ndax benn autorité bu pesé benn bu seen ci seen kaw amatul kon nag pëccoxoo rek a fa des ak mbumbaay mu metti ko lool mag ñenn ni ko nag jàngoro la dafa wàlle bu feeñee ci gox bala bàyyi gox ba ca des def ko waaw te kon dana matal réew bi ah seetal loolu seetal loolu ñaari buur condamné réew mi ñaari buur kii buur ba jolof la kii dameel du Kayoor xanaa ñoom ñaar duñu sëriñ de waaye ñoo condamné réew mi ñoo condamné aada bi aada bi ñépp di dëgëral ñoo ñaar ko condamné ñaari wali yu jóge fële ñoom jaar foofu seetal loolu Cheikh El Hadj Omar moo wax na Samba Abdoulaye ca Ndar ni ko nanga toog fii ci Ndar ca nga sax ci sa philosophie mu ni ko dama bëggoon delloo kër pour wut fa soxna mu ni ko wut ko fii ndax ñu ñu yar rekk a fi nekk wut ko fii bàyyi leen aada bàyyi leen aada bu dee ku nekk ni bala maa jël dellu kër catastrophe la te des na tuuti ngeen rax ci lu ci bokkul mooy di demi ba fu nit dee ngeen jayte jayte néew ba di wuti fu ngeen ko suule te yonent bi wax ni suuf si yépp laab na pour man ah, seetal loolu seetal loolu Maodo moom def la ca ay jël bagage am takk ba mu jekk mu teg dem Madinatul Munawwara ni tànkam doot fi dëkk ñu ni ko lu tax mu ni parce que réew la mu nga xam ni aada moo fi daan diine ba faw diinetu fi daan aada mukk mag ñi topp ko ñaan lu yàlla wax lu ne mu ni mag du ñaan lu dul nangu fii aada moo fi daan diine abadan abadan laa wax abadan moo doo ko wax de gàddu bagaasam teg dem yoonam Cheikh El Hadj ah, moo tax mu ni mu wax Cerno Samba Abdoulaye ni ko booy wut soxna wut ko fii waaw te loolu dafa mel ni Sëriñ Babacar moom ku tolérant la te itam mën nañu wax ni rekk c'est un homme wante dangay sentir ni am na lu mu d'accordul ci aada waaw ndax keroog bi Madina Tall gaañoo ma dina taal sunu cousine la sama mbàjjen xadee ko jur xaaji Saydu Nóoroy papaam mu gaañu fii ci ndakaaru ñépp di préparer pour ñu jël néew bi yónnee ko Tiwaawan fi ñuy waajee rekk àdduna yépp butig yi tëj ndax Saydu Nóoro toll noonu sëñ Babacar a toll noonu te jarbaatama gaañu doomu du Nooroo gaañu bitig yépp tëj ñépp di préparer pour dem Tiwaawan jékki-jékki rek sëñ Babacar ni dareet ci Ndakaar ñëw jël néew bi defar ko ba noppi jullee ko dem suul ko fii ci sëg yi dellu Tiwaawan seetal loolu ñu wax ko mënu du kersa du kersa gor yépp suul fii seen doom man sama doom dee fi ma di ko jël di yóbbu Tiwaawan du kersa waaw mais loolu aadaa koy def aadaa koy def waaw man am na ci ñu ma mere ba léegi ndax buñ ma ko tàggu man leen bu leen ko def rek ñu mere ma mais dama xamul mer mi fu muy tegu ndax dama leen dul tal waaw yàlla xam na ko booy mere mereel ki la tal waaye ki nga xam ne moom talu la boo ko meree dangay sàddeel sa bopp rek walla yàlla xam na ko léeg-léeg ñu ni ma diw mere na la ma ne ah kañ la ñëw man dafa war naa ma nga bitim réew yàlla xam na ko waaw dafa am lu nit di tal ak lu mu dul tal wallaay ndeysaan mu mel ni kon Cheikh El Hadj Omar nee na ñetti réew ñetti réew la wax ñetti réew ragal naa aada lekk seen diine ba mu jeex takk réew mu ñuy wax Sénégal réew mu ñuy wax Guinée ak réew bu ñuy wax Soudan muy Mali waaw te loolu feeñ na loolu feeñ na feeñ na bu benn sikk nekku ci waaw ah naka ci pexe bu ci pexe amul loo ci man man loo ci dara man ci dara moom li nga mënul dara mënuloo ci dara waaw dangay bàyyi noonu rek ndax it doo yàlla il na faut pas être plus royaliste que le roi dëgg-dëgg dëggam yàllaa ko nangu kay te moom loolu neex na ko te moom xare rek la bëgg waaw xare rek ko neex moo tax boo defee ni rek benn mag la bu tëdd ci pilyaanam ŋàbb yetam di konkongal xamuloo ko waaw nous avons affaire à des milliards et des milliards de systèmes waaw bu ci gën a yéeme sa morom nga ni bii te moom tekkiwul ci moom dara du tous spatiel, espace intermédiaire, ce qui se passe à, à, à l'univers invisible Lolo kenn daf ko mën a xam Le hein? la fa nekk ci ay serviteur qui service loolu kenn dafa c'est dans le dàll bii boo doxoon fi dëgg benn sànqaleñ mu dee léegi di nga gis espace intermédiaire yëpp joxante ko ñu ni parce que sànqaleñ sàngam émettre tout émettratul seetal loolu ku organiser ba àgg foofu su ko defee ñu nii mor juma ko dëgg ci dàllam ci réew bu ñuy wax Sénégal ci dëkk bu ñuy wax sancu pir moo ko dëgg ci dàllam mu dee moo tax émettratul bu ko defee ñu joxande ko sànq lañ laa wax de sànqale pour wax la ku àgg foofu ci organisation jar na bàyyi xel jar na bàyyi xel espace intermédiaire yi kenn xamul na mu toll même fu fi wali yu tëdd wala xut bu tëdd fa wala yonent tëdd fa bu ñu demee ba gis ni réew ma baaxatul dañuy yebal nawamis yi ñu ñëw gas bàmmeelu kilifa yi jël leen yóbbu am na ay espace intermédiaire yoo xam ni lool rekk lay jëriñ loolu rek lay jëriñ ndax nit ki moom boo ko ormaalul rek yàlla delloo ko ca boppam waaw bàyyi la ak sa réew nag day soow rek di soow rek di soow rek sama sëriñ bi sama sëriñ bi sama sëriñ bi fekk nekkatu fi dem na bu yàgg bàyyi ak sa coow ngay soow rek di soow rek soo guddi soo bëccëg soo guddi soo bëccëg soo guddi soo bëccëg téléleel téléleel maa moom sama bopp maa moom sama bopp maa moom sama bopp maa moom sama bopp ba ñu dégg ñu tàggale nga xam ni moomuloo sa bopp ku moom sa bopp kenn du ko tàgge maa la ko wax maa la ko wax ndax dee kenn ñemewu ko kon nak ku mom bopam du ray bopam ma la ko wax su ko defee mu mel na rekk diggante boobu Maodo sonnoon na lool te dafa gaaw a gedd te du gedd mukk te joxewul raison yi tax mu gedd bi mu faboo jël sakkoosam dem ca Madina ni dafa dëkkaaleeg yonent bi ba faw mag ña fa nekk ñoo ko yee li ko lale metti foofa moo nekk fii loolu tax mu mujj ku ko tagg ku ko tagg yoonu màkk mun la bu fa roy dara parce que gis na ni yàqu-yàqu bi fii moo fa ne am na ñu daan sax rasu ni pourquoi muy wax loolu man leen ma ci alxuraan la ko teg Maodo lu mu wax ci alquran la ko teg ndax yàlla moo wax waa Quraysh ak ña leen jàppale ni leen maa jël ki gën jox leen ndimbal jot ngeen seetaan ko ma nangu sama nit man def li ci moom war jeex na illa tansuru illa tansuru faqad nasarahu llah waaw loolu dafa jar ngeen taxaw ci pénc mi di sàgg jibril lu jibril def jox naa leen nit ki gën ngeen sàggane ko ba ndimbal jotee dimbalewu leen ko man nangu sama nit dimbale ko tax ngeen taxaw ci pénc ma di sàgg jibril sàggawu leen jibril waxu leen ki ngeen bëgg a sàgg tudd leen ko tudd leen ko wante ñemewuñ ko tudd ndax xam nañ ni yonent bi tax na yàlla dootul alak nit waaye wóoluwuñu ko waaw waaye wóoluwuñu ko la mu waxoon ba xale yu ndaw yi di làqu ci ruq yi di ree moom yàlla ko waxal boppam moo leen ni magi Quraysh yi gën a rëy gémmiñ di ma tappaas melax rekk la ñu ragal ci àdduna yàlla weer leen nag nekk xam nañ ni xam nañ ni ñamu alagoon ñépp ci melax la leen aje xam nañ ko dégg nañ ko yàlla siiwal leen nag te xale yu ndaw yi ku ci gis mag musul mantoom rek ak caq wuru sama di tiitaru ñu daanu ci suuf rek ni gis nga leen ni ñu bare tiitar te melax rek li ñu ragal seetal loolu yàlla dafay weeraate dafay weeraate bu metti dafa mën a ndax mooy xulul yonent bi moo koy xulul moo koy xulool bu ko defee rek mag mu romb xale yi xale yi làqu ci ruq rek reetaan te ñoom ragaluñu melax mag ñi rek ko ragal ndax fàttaliku la woon ah seetal loolu fàttaliku la woon mu mel ni rek booboo tax ku ko masaan tàggu yoonu màkk mu ni la bu faroy dara maanaam ña fa nekkoon ñooy sàgg Jibril lan la Jibril def yàlla yebal ko ci Muhammad ñu ni fumiste la ndax bu dul woon fumiste dafay dajale ñépp ci pénc bi laaj kan lañu bëgg waaye xanaa mu ñëw rekk jaxase dem ca banu Hachim dem ca yu kenn xamul nekk fii di fonto nit ñi yàlla ni leen xamuleen ni Jibril mi ngeen di saaga te bañ ko def ko muy seen noon toq bu ñuul bi ci seen xol ba tax ngeen bañ ko maa ko yebal pour mu samp ko ci seen xol ndax bu ngeen ko soppoon texe dafa suma yéenee ngeen texe teetal loolu yàkkul yàlla ak jibrail ndax muhammad amul xam nga looloo engagé woon muhammad moom itam ndax jom jom la tudd mais lu ñu ko yàkkul moom yàlla bu waxee ñu ni ifkun xadim la bu gan ñëwee di laaj kële ber boppam kan la fekk yonent bi lekkat ñu ni ko sunu benn doom la bu bopp bi wëlbatiku seetal loolu moo tax benn yonent benn yonent sañul def discours te discours bi dëppoowul ak jëfam benn yonent sañu ko te dañ leen di surveiller te nawaamis yi itam dañuy agir dañuy agir sur le sur l'âme d'abord sur l'intuition sur la passion sur les sentiments hein